asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaante dellu si waat seen émission ëttu ndaanaan yi ëttu ndaanaan yi nag tey ñu dalal ci ndaanaan boo xam ne dootuñu ko présenté ci réew mi ak bitim réew daam seen boo ko waxee ndaanaan jeex na waaye laataa loolu rek euh, at mu bees bii ñu dugg dañuy ñaan yàlla rek mu defal ñu ci euh, gaalu xéewal guy daw ci géeju mucc yàlla mën na ko yàlla na ko def at bi ñu génn muy 2020 metti woon na tàngoon na kilifa diine kilifa diine jóge fi kilifa aada jóge fi ñu leen di ñaanal yàlla rek yàlla yërëm leen jéggal leen yokk yërmande ci ñoom léeg-léeg daam dégg nit ñi ñaan naan yàlla yàlla yokk leeram wóorul bu fi nit bàyyi ko da nga koy ñaanal yàlla jéggal ko te yërëm ko ndax yërmande suñu borom ci la lépp xaj jéggalu suñu borom la ñëpp di sàkk xam naa ne rek euh, ñuy ñaan yàlla mu yërëm leen jéggal leen ñuy nuyu suñu yaay ju baax mère Fane Cissé nga xam ne da wolof day wax ne feccum liir bu neexee nday jaatee ca bagg ya xam naa ne rek ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ñaan at mu bees mi yàlla ko yàlla defal jàmm daam seen ñoo ngi lay nuyu ci ëttu ndaanaan ah, maa ngi leen di fay di kontaan loolu di rafetlu seen teewaay ak déplacement bi ngeen def jóge fu sori ñëw ba fii ah yéen nag lii moo leen war seen wareef ngeen def ndax lu jujootum tàgg moom bu naawul jaaxale mbokkam di wax alhamdulilahi rabil alamin di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi di sama ñaari waajur di sant sama sëriñ di ñaanal sama yaay mu yàgg fi loolu di wér di ñaanal Serigne Saliou Touré yàlla na fi yàgg te wér ndax bu fi yàggee rek sunu njëriñ lay doon. di kontaan loolu nag ci fans yi Ceesuwaay yi rawatina nag gox bi nga ñëw fekk ma fi muy jaxaaw di bëgg loolu ci yéen nag di kontaan ci doomu aadama yi ci àdduna bi yëpp fépp fu fans nekk rek daam seen lay nuy sa ak sa sant di la bëggee bu baax a baax jaa ngeen jëf. waaw mu mel ni daam dañuy ñëwoon ngir waxtaan ak yow ci ëttu ndaanaan bi buñ bëggoon xam kan mooy daam seen daam seen digganteem ak aar daam seen aar daf ko jàng wala don la bu yàlla def ci moom. daam seen moom xam ngeen ko ba pare ba ngeen ko seesee ngeen xam kuy daam beneen bi mooy sama aar bi may def ah yàlla suñu borom moo ci dogal li mu ci dogal mooy ma juddoo ci kër ngéwal xam nga juddoo ci biir ngéwal taxul sax nga mën li ngay def mën nga fa juddoo yaroo fa màggee fa te métier bi doo ko mën ñu ne dañuy sant yàlla ndax lépp lu ñu mën rek suñu borom la ndax tey fi ñu toll tey. ak fa ñu commencé ku ne xam ne am na différence bu mag waaye loolu lépp sant yàlla suñu borom rek ndax yàlla moom mooy yóbbu nit fa mu àgg yàlla moom mooy def ci nit la muy def ci moom te kenn du ci man dërëm kon nag alhamdu alhamdulilah moom duñ jug di ko wax duñu jug ci di ko wax moom sant yàlla lépp yàlla la daal lépp suñu boroom la. mu mel ni daam dañu gis euh, nga génne son bu bees waaye laataa loolu dañu gis nga def duo ak 10 euh, 000 problèmes. waa euh, mille problème nekk dakaar ba pare moom rang muy gaaw rek lañ ko xamee lan moo tax nga choisir dix mille problème jóge fii ba ba Thiès dem ànd ak dix mille problème ngir ngeen def duo da nga ko bëgg may bës wala bës nga bëgg ci moom. waaw bës laa bëgg ci moom parce que booy xool dañ ne rang muy gaaw àdduna léegi lépp gaaw lekk gi gaaw na nit ñi gaaw nañ dee ji gaaw na moo tax moom muy ndaanaan loo xam ni benn moom bu ndaw boobu noonu ah yóbbu na morso fi sori de nit ñi nag dañ yaakaar ni man maa ko dem. dama ko indi moom maanaam pour jàppale ko pour may ko loxo moom moo may loxo moom man maa ko utiliser moom parce que ndaanaan la du koo xam ne nit ñi mënuñu koo xam heure bi noonu non parce que sénégalais bëggul dëgg boo koy wax danaan da nga dof ndax xamuñu dëgg bëgguñu dëgg te duñ dox ci dëgg dix mille problème nag man dama ne zéro problème mais dix mille solution ndaanaan la ku mën li muy def la ku baax la ku rafet xool la ba pare ku xam dëgg la ko wax ba pare dafa dëggu man moo tax mu neex ma jéggiwuma Thiès nag dem jëli ko yàllaa ni woon man ak moom at mii dañ ciy def euh, featuring boobu ñu def ko nag mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla am naa ci lu ma sut lu sut sama njort daal ndax yóbbu na ma fu sori single boobu ma def moom yóbbu na ma fu sori moom yóbbu ko fenn moom fa mu ko fekkoon la ko bàyyi bàyyiwaat ndax ndaanaan la li mu def noonu du lu yomb parce que benn moo bu nit ñi xeeb muy rang muy gaaw te léegi dëkk foo dem dañuy rang kon nag affaire dafa war a gaaw dee ji gaaw na comme ni ma la ko waxee lekk gi gaaw niñ sax dañoo yàqam ni ñuy lekkee léegi kenn amatul temps sax jël sa temps lekk ndànk sàqameetuñ dañuy war a dee ji gaaw na lekk gi gaaw na ba pare at meeg weer bi da ngay jékki-jékki ñun la suba la korité wala jékki-jékki ñun suba la koor gi suba la jékki mais lépp gaaw léegi kon rang muy gaaw. kon yow message boo bëgg a jàllale la moo tax nga jëli nga jëli rang muy gaaw. non du message maanaam tey moom rang muy gaaw boobu déggoo li ma wax nit ñee ko xeeb mais wax la waaw yaa ne lépp dafa gaaw moom te danga muy gaaw wax. waaw maanaam comme boo nee lépp lépp dafa gaaw léegi Sénégal da koy xool àdduna sax laa wax lépp a gaaw dee ji gaaw na lekk ji gaaw nit ñi sax dañoo gaaw léegi da xool nit léegi nga gis kenn ko mu taxaw fii léegi nga jékki-jékki seen ko fële foo dem li ñaa ngi rang hôpitaux yi jàkka yi sax dañuy rang léegi pour dugg bi léegi xam yi foog nga rang nag kay simi daalam dugg kii simi daalam dugg xam nga maanaam message la bu doy waar waaw très bien ah ok dama déglu woon ci cadre bi nga waxee. mu mel ni daam kon euh, sa diggante ak artistes yi artiste Thiès euh, artiste Dakar. waaw artistes yi dama diggante ñoom jàmm ak salaam wax dëgg yàlla parce que comme ñoo bokk li ñuy def jàmm lañu war a yéeneente man dey ñëpp laa yéene jàmm. nit nag dafa lëndëm doo xam ku la yéene jàmm ak ku la yéenewul jàmm ndax léegi ñëpp a ku jënd sa pat bu baax yor sa boros boo soccoo sa xol da ngay ree rek. gaa yaa ngi ree doo xam ku la bëgg ku la bañ waaye man daal sama xol bi set na wicc set goo xam man xam naa dara ba ñëpp laa yéen a jàmm ku bëgg jàmm nag boo fi ñëwee di nga fekk jàmm ku bëgg leen dama seeti ko feneen ndax amul fii jàmm rek ñëpp laa sekkal jàmm muy Thiès ak Dakar ak fu mu mën a ne artiste yëpp laa yéen a jàmm wax dëgg yàlla. waa daam léegi la moo tax euh, nga nga nga moo damay ñëwaat ci 10 000 problème bi xam naa ne jàllaguñ ci mais la moo tax nga bàyyi artistes yu Thiès yi dem ba Dakar di duo ak euh, dimi problème te artiste Thiès nekk fi. mooy li ma la wax du seen nul de nii lu ñu de du seen ñàkk mën de dee du loolu de yàllaa ni woon dix mille problème daam dina def ak moom fitting daam commencé gul jéggiwu fi kenn bàyyiwul kenn xeebul kenn tey jii ku jot ma def ak yow benn affaire dama la koy def ak yow bu doon ngoon sax ma def ko yow. yaa ngi koy dox est-ce que. non loolu du dara man sama digganteeg artiste Thiès yi xanaa ñoom sax laa gën a mën a yéene sax ndax ñoom laa am di. waaw ndax tey jii bu ma doon joué benn affaire tey ñoom laay woo léegi ñu ñëw tey jii kenn du ma tànkam lu ci dara moom ku ma ci woo nga ñëw wuy si ma ñoom ñëpp samay rakk la ñu ak samay samay samay maga fi ne ak samay morom baay di def musique tey jii ku ma ci soxla damay dem wuy ku ma ci soxla da ngay ñëw wuy si ma maanaam moom li ñuy boole maanaam du lii dafa am benn morceau bu ma defoon mu sentir morceau boobu ñu wax ci téléphone man moom mun ma noo man yow dama la bëgg ndax dama gis. maanaam kulli artiste lii nga wax ni ñam ñamawuñ ci wax yow nga ñëw wax ci kon nag maanaam yow foog ñu nekk ay gaan loolu moo ñu boole nii man ak moom rang muy gaaw bi ñëw nag ma koy déglu mu koy wax déglu woon musique dana muy gaaw man ma ñëw ci club mu lay maas mu naan waag duwaang di wax loolu maa ko ci dugal moom moo rang muy gaaw man ma ni club lay maas moo boo déggee rang muy gaaw club mu lay maas waag waang waag waang waag waang ten tew sa maasa yow forom alaxira ma ne yow xale bi demal toog noonu la morceau bi demee maa ko bind man ah, mais maa jël moom utiliser ko ci biir morceau bi invité ko moom mu ñëw. ok waaw boo gisee yu mel noonu ñu koy laaj day day baax ñuy leeral ndax nit ñi day lënt seen xel te duñ xam mais buñ toogee ku mel ni daam seen buñ ko ci laajee ñu tontu mais daam ñu gis ñu sirante benn euh, son boo xam ne dangay ngay way picc yi ñu gis la nga gàddu picc yenu téye sa loxo ba pare di way xale yi ma dégg ci biir way bi nga naan xale 18 ans yi 17 ans yi 19 ans yi ba yi message booy jàllale foofu lu tax nga taamu leen. waaw foog ñu taamu leen parce que tamit maanaam askan wi ñun ñoo leen les sans euh, la voix des sans voix ñun ñoo war a waxal askan wi tey li metti askan wi ak li ñu bëgg a wax te mënuñu ko wax ñun ñoo leen ko war a waxal porteur de voix tey boo gisee moo way picc yi ku ne am nga picc am nga picc boo amul jabar am nga gel sa jabar mooy sa picc sa gel mooy sa picc yooyu moom it noonu ci côté am yaa ngi dégg ku ci amul gel amoo jabarit am nga papa war nga am nga yaay c'est-à-dire dama ko définir noonu. ba pare aussi tamit rendre ci hommage jaay ko te picc yi tey yoo amoon soxla ñun la da ngay wuti picc nga ñaan sa soxla nga sànni ko da ngay dem jënd benn picc bu cent franc wala fukki dërëm ñaan soxla sànni ko mu dem libéré nga picc. Mhm. tey nit a ngi jàpp picc dugal ko ci kees picc yooyu dañ leen a jàpp dugal leen ci kees yi kon léegi mu ngi mel ne nga jàpp ne dugal ko prison picc boobu soxla na ku ko dimbali ku ko génne ku ko libéré mhm. tey jii boo woyee picc moomu tey jii même bu picc mi xamul ni moom ngay way yow am nga benn kii boo jàllale boo xam tey jii picc da ci gis boppam ndax saa yoo xëyee yeew boo nee tëll ci biir di nga gis picc bu naaw mbaa picc buy sab picc bu lay cof nag bàyyil mu dem waaw jaba ju la lëjal gel bu la sonal bàyyil xale 18 ans yi <coughs> pardon boo gisee mooy lan maanaam da ngay xool tey jii waajur yi sonn nañ trop dañ ni waajur yi yaruñu mais xale yi ñoo yaruwut waajur yi sàmm ñu mais xale yi ñoo sàmm wut ndax tey waajur yi dañuy toog li leen ñu ngi def seen doom yi bu dee financement ñu ngi financé xale yi bu dee wàllu yëre ñu ngi jënd école ñu ngi fay lekk ñu ngi koy joxe naan noonu di lay tëddal fu baax nga fay tëdd mais xale yi si boppam ñoo yoon lekku def loo xam waajur yi sax duñ ko dem loué seen apartement nefa kilifa yi di leen jox xaalis am na yeneen kilifa yoo xam ñoom ñooy crompe xale yi waaw. déggoo am na benn buy waaj a génn ba am na paa yoo xam ni dañuy wër yor seen déggoo am na paa yoo xam ni dañuy xëy yor seeni oto xale bu ñu romb dugal la ca liir liir lu soleil xaftaanu kase la ñuy dóor ji ñu duy tal dara wax ju àgg moom dafa ko moom bu ma kenn sonnal yooyu ngi ñëw. waaw bu mel ni sunu moom papa Diaga mbay moo waxoon ne way bu yeetewul diglewul ay naxaate la wax dëgg yàlla lii nii ko ko dégg xam ne mi ngi digle mi ngi yeete. man yàllaa may dimbali man man yàllaa may ba maanaam lépp lu ma bëgg a wax ci rek nit ñi nañ ci jëlee njëriñ ba pare di nga xam lan laay wax man yàlla la kooku yàlla man yàlla rek laay sant. waaw man daam da génn benn son bu bees aussi euh, muy man la nit yu Thiès men da ngay bàkku ci way bi. bàkkuwu ma ndax dafa nit dafa génn taxaw ci réseaux sociaux yi di xas waa Thiès ni leen nitu Thiès day wor ma wan ko ni nag booy wut nit ko am fulla fayda cees boo di koy fekk ko fi dignité Thiès la fekk baax. gore Cees la fekk baax fit Cees la fekk baax xol bu set de Cees la fekk baax nitu diine Cees la fekk baax man sëñ Saliou Touré. waaw de dama jàpp ne kooku noonu li mu wax njuumte la ndax dëkk boo xam ne dëkk bu mel ni Cees nga xam ne kilifa diine yi fi nekk ku mel ni sëñ Saliou Touré kër maam El Hadj sunu professeur yu baax yi professeur Ibrahima fay kilifa yu mel noonu nekk fii ngay wax njuumte loolu loolu dama jàpp ne njuumte la. waaw maanaam nit nag bu juumee dañ koy rectifier bu nangoo nag ñu rectifier ko bu nangul nag ñu wut leneen beneen pexe te looloo war ñu génne morceau bi te morceau bi nag maa ngi ciy sant euh, monsieur le maire Talla Sylla bu baax a baax a baax ndax studio bi lu mu moom moo ko fay. mënoon na ma seetaan ba ma ko waxee dafa ne ma dinaa ñëw ba ci te dafa ñëw taal otoom fekk ma ba studio ba dakaar ñëw fay studio ba kooku cees amuñu fayam moom it dañ ko war a jàpp dañ ko war a taxaw xam nga am nañu nit ki moom. nit ñi du la xam tant que jóge woo fi li ñuy wax loolu du wax jooju mais dañ laa war a xam xam nag ba ba nga fi ne ndax boo xool Thiès bëri na ay autorités yoo xam ne maanaam ñi ci bëri ay naxaat rek lañ lay def. taalisi la nag day taalibe wàcce boppam bëgg Thiès gëm Thiès ay waxi kese nag ñun du ñu nax bu ñu jugee nag di dëkk sa nopp bi di wax ay wax yoo xam ne ay taalisi la nangam taa man du ma ci gëm kenn man taalisi la dama ko jàpp ndax dafa am yërmande bëri na yërmande ba pare am na taalibe. ba pare taala lekkul bàyyi kenn tey bu nee taala seen jox nañ ko 10 milliards pour waa Thiès 5 milliards lañ def jox nañ fi nit cent milliards defu ci leen yaa ngi dégg. kon nag nañ jàppale taali si la te bàyyi ko ak ngëm-ngëmam bàyyi ko mu liggéey liggéeyam man loolu laa gëm. yàlla na ko yàlla jàppale monsieur le maire Talla Sylla la ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal taw feex mais daam ak xale yi daam moo choisir ànd xale yi wala xale yi ñoo ko topp. parce que dañu gis ne daam seen xale yu ndaw yi mën nañu ko tardel fii léegi léegi léegi léegi. loolu am na yàlla ak sëñ Touba ma boole ak ñoom mission la xale yi. mission la yàlla ak sëñ Touba ma boole ñoom nee naa la à part Serigne Saliou Mbacke kenn bëgg kenn gënu maa bëgg xale kenn gënu maa bëgg ndongo daara man loolu moom am naa fitu wax ko fu ne du ma wax nag mhm. wax baaxul yàlla xam na mhm. ndax fi mu ne nii moom jarul nga expliquer nit ñi ndax nit ñee compliqué te ku compliqué doo neex expliqué bu yàlla xamee doy na xel mu saturé ak liir bu prématuré ñoo yem jërkatu horaire foo ko fekk dafay tardé reer bu fekkee dangaa dër nag mu lay metti boo geesoo yem ci muuma sa xel war naa eh, mi ngi noonu. waaw daam ñetti question yi mënuñu ko ñàkk bañ a posé muy euh, daam da ngay way daam gis nañ da ngay taasu te daam day tëgg sabar te ñett yi daa jàpp naa ne bokkuñu bokkuñu ay bànqaas. waaw mais lépp ci ngeewal rek man man lu ma gën a ma a kii sama àdduna mooy daam dañ day taasu non daam déedéet. daam poète la daam taasuwul de taasu jigéen moo koy def c'est que dafa nduróo ndax musique ba tàccu ya nangam sangam mais taasu ak i manière am daam mënul loolu. kebetu kebetu d'accord naa mais taasu jigéen moo koy def ndax day ànd ak ay raga jog ay biiñ te du ma def yooyu man. ay rag ay góor yi raga jog góor yi biiñ góor yi xeesal léegi taasu léegi da ngay gis góor yi dañuy lëmbal lëmbal pour lan ci góor xeesal pour lan ci góor. biiñ ay ragaju pour lan yooyu jigéen ñi moom des na tuuti nag léegi góor ñu commencé ay xeef ah est-ce commencé wuñ ko. mais daam nga baal ma nag euh, ñun clip yi la ñuy gis góor di fecc yenn fecc yi euh, ci clip yi la ñuy gis góor ñi di xeesal te yéen yéenay artistes yi yéenay aar yéen a moom aar. bay sama wax lu ma ci mën maa ngi koy wax maa ngi koy def aar moo tumuranke amul nday amul baay aar léegi comme benn genre kii rek mu tuddati. Euh, kii ay non kii nu mu tuddati buy sama nday jirim aar léegi jirim la gisul ndey gisul baay aar kay bu yow dugg ci gaal rek. ba Barça Barsax gi non man maa ngi ci bay sama waar du ñëpp mën a wax ci loolu nag parce que am na ñoo xam ne ay complexe la ñu man gëwuma loolu man lu ma gëm mooy li nga xam sa liggéey la nga bay ci sa waar parce que aar fi mu ne nii foog ñu dugal ko bloc opéré ko ndax daf maa amal njariñ man amal keneen ak keneen njariñ mais ñi ci ëpp nag maanaam na leen xaas baa leen ñor rek ñoom seen yoon nekku ci li ñu rek la ñu doon parce que gis ng toll nañ foo xam foog ñu lijjanti ko parce maanaam mi ngi bëgg a yàq ku da ngay xeesal ba weex taal ne artiste nga pour ñoom artiste boo xeesalul ragajoo bii ñëw lëmbaloo ñàkkoo fayda waaw waxi ñàkk fayda waxi vulgaire yi saaga mais leen gis ku saaga sax ci ay way da lu ñaaw nga gis ku toog léegi bëgg bës rek tax nga dem simmeeku ba set wicc ndax bës nga bëgg bëgg bës tax ngay wax loo xam waroo ko wax kaay wax yaa ñu saf nag bu mën a tax wax loo xam yàkkamte gaatu fu ñu juree doom réccu am ci yoon na menuisier bi dem daaji maçon bi dem raaxi tailleur bi dem ñawi waykat ba dem way mais bu fekkee da ngaa bàyyi sa métier ñëw ci loo xam ne yow moomoo ko ay erreur la ngay dëkk ñu ci bëri nag laa am nañ métier moo xam bu ca toppoon am ci ay milliards léegi mais bëgg wane wu bëgg ne artiste wala nga bëgg a tax na nga ñëw dugg ci fat ñu tarat nag ñun man nag kenn du ma fat mooy benn wu ma kenn moom ma aar moomaanu ma aar te nag léegi dinaa jël aar ne maa ko moom ndax aar moom comme dañ ne kenn moom ko rek foog mu am kuñ ko teg ci loxoom nag mu surveiller ko man nag bis ni tey man maay jël aar man surveiller ko sama bopp man keneen ku ci bokk dinañ la ci génne par force ndax am na yoo xam ne yàq der la da ngay xool ñi mën ñi sax kenn déggalatu leen kenn déggalatu ba waxee ñu la kooku daa xeewi kenn xeewu fii danga am mën ñu la rek ndax lu bon la nit ñi bëgg léegi lu ñàkk fayda lu la dul yee lu amulul benn njariñ nga jël sa xaas di ko ci def jaru ko kat moo tax léegi ku mu neex tëgg da ngay jékki génn fii gis ko xamul dara na day tëgg mu fees dell man na bu yeewu man su ma tëgg bu mu fees ndax li may bañ dafa bëri man sama bañ li may bañ dafa bëri borom ñaar tur bëgguma mu ñëw sama yëf bi nga bëgguma nga ñëw sama yëf te ñoo ñooy feesal bu waa di léegi léegi nag moo xàmmee toog ku mën a ku mënul léegi da ngay gis ko xamul dara ñooñu doole la topp sa ginnaaw boo tëggee ñu ñëw di la sànni seen xaalis mais yooyu man bëgguma ko man bu yow ñaari nit di ñëw sama soirée sama yoon nekku ci mais loolu man gëwuma ko de bu ñu ñëw bu fekkee ñooy feesal kon dootuma fees le man mais maa ngi sant yàlla bu baax ndax maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi am jàmm am naa wér suñu borom mu ngi may dimbali seen tubaab may dimbali am naa kër ñaata oto laa yor ah kon sant yàlla sama oto ma njëkk a yor yor naa ko. Cheikh Kanté mi décanté te du escanté léegi moom laay fréquenté Cheikh Ami Diawara jox na ma oto Chevrolet bu bees tàq zéro kilomètre. ma dawala daw non non bu bleu. ma dawala dawala dawal dawal dawal dawal ba am sama soxla joxe oto bi jël sama xaalis aral du faj dee gàtt faj faj a faj. demaat Canada ñu may ma oto bu rouge muy Buick bi ma ñëw dawala dawal dawal ba sama yaay bëgg a dem màkk ma jël oto ba jaay jën sama billet dem Amérique li jënd billet màkk jox ko sama yaay mu dem màkk ñëw. kon nag man nga dugg sama soirée nga ñàkk caa dugg sa affaire la man maa ngi sant musique sax mayu man musique maanaam may mayetu ma li may may mooy sama fulla ak sama fayda sama gëm-gëm ndax bu dee musique bi rek la mënu ma cee tëgg loo xam ne mën naa ci génne cent millions léegi léegi léegi mënul nekk yàllaa ma yor. waaw daam ko fan Thiès fii ñu nekk ku koy ku koy fekk ci yi fan nga koy fekk. fan nga tëggee. actuellement xanaa ma jékki-jékki rek organiser benn affaire ci benn boîte. dóor ko fëgg ko pour fan si ak ñi nga xam ne maanaam soxla nañ daam seen ma def ko mais léegi di tëgg régulièrement moom yooyu moo fi amatul. mais lu tax nag daam teew ngay ngay ngay ngay ngay borom Thiès. war a dundal Thiès non moom ma Thiès mais da nga cee da bokk. dañ terrain non Thiès moom drapeau bi maa ko téye bul sonn kon kay kon kay. foo ne artiste bu dëkk Thiès daam seen la xel yëpp dem drapeau bi yóbbu naa ko ba Amérique drapeau Thiès tàllal ko nii loolu jaaxaluma ay soirée taxu ñu ne yow artiste nga wala yow ndaanaan nga wala yow yaa non dundalul dëkk bi de dundalul dëkk bi da ngay ma dundalul dëkk bi déedéet boo waxatee loolu dund dëkk bi lu koy dundal du ay soirée de hmm. xale yaa ngi dem seen ñu ngi dem ci réception yi xale yaa ngi dem ci anniversaire yi xale yaa ngi dem ay soirée dundalul dëkk de li ma la sànq dama ni la bu fekkee ñiy feesal soirée yi mooy ñooñu man du ma soirée su may tëgg soirée moom xanaa ASC organisé ma dem tëggal la parce que xar day weesu mbote nag bu bëggee motam tudd te gis nga bois de boo doon toppee dinañ la tardel doo liggéey chaque semaine nga bëgg a jouer fois wala quatre fois amul la benn njariñ dem bind say morceau répété dem studio dugal ko fexe noo amee ay vidéo sànni ko àdduna bi yëpp di ko seetaan nga am say soppe fu ne ñu fay bëggee moo gën nga topp ruq di fa tëgg ñu lay may ay téeméer ak ñaar téeméer nga yàq say nelaw sa waay doo inspiré lenn lenn lenn ku am foo joué nag del joué ku am boo tollee del joué man dama naan toog semaine bi cees ñeenti boîte mën naa tëgg boobu temps tolluguma fii ma toll am na lu ma gëm nag am na lu ma bëgg am na lu ma gënal foofu chaque jour mooy tëgg guddi gi day yàq say nelaw nii maanaam te doo ci am dara boo demee tey xoolal tey pale bag yi ngay def benn soirée mën nga ko tëgg doo yóbbaal sa kër quinze mille mais dëgg la xool nga dóor bag léegi ñu fayal trois cent mille ñaari morceau lu gën ah mi ngi noonu man su ma amee loolu moo ma gënal su ma amee ay milliards nag bàyyi musique damay gënal. waa daam mu mel ni euh, Covid 19 bi ak artistes yi génnoon di ñaxtu yëg nga ko dem nga ci wala demoo ci. man dama cee gën a am yaram Covid bi dama cee gën a am tey. Ah damay sant yàlla. ñoo artistes yi nga xam ne dañ dañoo génnoon di ñaxtu. non man ñaxtuwuma marche ma waaxuma balaa maa marcel aar marcel l'islam marcel gu ma l'islam di marcel ay aar léegi kooku koy bëreeg sunu borom la yàllaa fi wàcce Covid bi di Macky sàll wàcce ko fi keneen wàcce ko yàllaa ko fi wàcce sant yàlla moo ñu war ñun artistes ñun source ñun ñu ñoo gën a ñàkk jom gën a ñàkk fayda ñëpp kenn war ñoo fekk ñuy marche ndax ay affaire Covid. aussi lan mooy Covid feebar la comme feebar yi fi ñëwoon day jàll ñu ñaan yàlla deux mille vingt et un bi ñu dugg doon loo xam ni maanaam mbégte atum mbégte atum xéwal xéwal gu saawoon baawoon ba ñëpp xaj deux mille vingt bi tey bu neexewoon ci ñun wala Covid amul leneen duñ dal nit da ngay sant yàlla te du artiste kese ñoo nekk ci àdduna bi ñi xoola ñi mu dal seen kaw bari nañu ku nekk ne tekk ñun ñu naan dañuy marche man marche lu ma kenn booba benn artiste woo ci marche du ma ci dem ndax man loolu taxumaa jóg yàllaa wàcce feebar bi lépp ci loxo yàllaa ko teg maa ngi lekk maa ngi naan tiit naka leen jàpp mais ku toog dénk sa bopp yàlla sunu borom du la seetaan yàlla biir bu mu sàkk sàkk te lam cay def muy biir bii di biir bàmmeel biir bàmmeel nag la cay dem yaa cay dugal yaa ko fay dugal ndax yàlla mi la jox ruu ni la in la ci àdduna bi pour nga liggéey pour foofu la sa biir bi nag bokk ak moom mais lan la lan moo xew chaque jour que jëfee nga gis artistes yi voyage ak seen i groupe dan du doylu la te àdduna boo du doylu doo dem boo gëmul yàlla doo dem mos ngaa gis ab oustaz bu ànd ak groupe am di voyage amul fenn ñu may 10 visa wala 15 visa artiste lañ koy defal kon eh, sant yàlla boo jugee xeex fe wax pirate bi eh, pirate bi dafa metti ñu ngi ñuy bëgg a rey mais ku ñu pirate lu lay xamee nit foog nga yeewu dem ak sa conscience tra foog ñu am xel di wax ak xel quoi di xalaat ak gis nga dama mos a wax benn waaye ni ko nit du nit mu tax nga ne nit du nit man ko ku sa xel du nit doo nit bu ne kii dof bi la xel maa jóg ci moom de mais ki war a faj dof bi bu gënee dof dof bi fan la dof bi jëm mais nañu waxante dëgg waay ah quand même waaw dafa mel ni gis ngeen ko déggandoo daam seen moo ko sañ wax ndax ci la bokk waaw daam sa kàddu gu mujj ñu tàggatoo ndax émission bi mi ngi xëccu jëm ci jeex. waaw euh, di santaat yàlla bu baax julli ci yenente bu tedd bi rek santaat samay waajur bu baax di ñaanal sama yaay mu yàgg fi loolu sa wér sama baay ba ca barsaak sunu borom yërëm ko te jéggal ko ma lay xamal ne maanaam doomu aadama yi maanaam ñuy bañ a wax giseeg daam fa muy waxee tolluwaay la te aussi gis nga nit ki. foog ngay déglu nit ki li muy wax lu mu doon nga doog a mën gis nga léeg-léeg nga gis commentaire nga gis ku bind saaga nangam saaga gis nga yooyu yëpp gis nga boo dee nettu dëgg buñ la saagaat dëgg sax sant yàlla man damay sant yàlla ndax bu yàggul dara am na benn wax moo fi génne ne tout court am ñoo xam ne maanaam ñooy ñooy ànd ak ñoo ñu may wax rek ku ci nekk dem ca kii ba di bind ñii di saaga nangam saaga yooyu yëpp ma yëngalu ma man déranger wu ma sax man sama fan si yéen laay wax dee leen ma déglu mooy bu leen xuloo bu leen xeex bu leen dàggasante bu leen def dara man mën naa joob joob bi ndax géree laa te kenn mënumaa kromp ba dugguma ci leen lu ma neexul ndax taaliba Serigne Saliou Touré laa gëm sama bopp ba fa gëm-gëm yem na ngeen toog jàpp seen ñàmbur lépp loo soxla ci wàllu lu war génn te muy féexal seen xol wax leen moom a génn ko seen xol yi di neex di féex Habib Kane Kane Tukulóor maa ngi lay siyaare maa lay bégg bu baax ah docteur Ndiaye docteur du yokk toor day wàññi moor doo ko seeta mun la soor ko koy docteur Ndiaye chéri mat lañ jaañ Mohamed Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye Ndiaye ma ca Paris bitu bu amul Ndiaye dañ koy tëj borom Madina Fall la nga def ca jumaa ja ca Tiwaawan ñëpp yëg nañ ko ay millions yu bëri nga ca def yow la ñëpp di wër fi nga jàpp foofu la Ablaye Dieye borom sigi jot na maa ngi lay siyaare bu baax Ablaye maa ngi lay bëgge bu baax sëñ Medoune Seye borom tawféex maa ngi lay siyaare bu baax sëñ Medoune Seye am na benn waay bu ñuy wax Cheikh borom aram 3 maa ngi jégalu nag waaye foog mu jàll sama nit la daf may jàppale foog ma taxawu ko foog ma taxawu ko dina ñëw incha allah maanaam ñi nga xam ñoo lay jàppale foog nga leen di wax non dina ñëw <coughs> ndax émission bi pardon ñëpp a koy suivre am naa benn waa xam bu ñuy wax Sidi Ndaw doomu yaay Adja Diop fii ci camp bi Sidi Ndaw dootul ku ndaw chéri soda ah dama ni kooku day jàppale nit du ci boole wax ñu yooyu lay wër man bëgguma kuy wanewu booy def te yàlla tax dafa gën ngay def te nit ki tax yàlla am na fay te nit ko amul fay maa ngi waaj a génne morceau boobu nag tuddee ko morceau bi nag yàlla laa koy may. yàlla moom moom morceau. da ngay yàlla léegi daam. moom rek a yelloo ay tàccu. da ngay wax léegi ñu naan applaudissé la ki jara a tàccoo ngi ni avion ba nee aw ca kaw lu ko tee du yàlla. suuf si lu ko fi laal du yàlla. bato ba ca ndox ma du yàlla. loxo yi nga ko la ko jox. micro bi nga téye ku tax nga téye ko du yàlla. <coughs> jox bakkan booy na du borom borom xam-xam yu bari dañ ne yenn bàkk yu sax sant yàlla. dégg li ma yàlla rek a jara tàccu ma leen di xamal ne nag yu bees yaa ngi ñëw toog leen xaar ak original bi rek non du yomb bu ndaree yomb rek ma lekk monde bi. mbokk internet yi kon ñu ngi noon mi ngi noon ñu ngi leen di sant di leen gërëm àndoon ak Dame Sène ci émission bi émission bi nag mooy ëttu ndaanaan yi yéen ñi koy seetaan bëgg artiste bu toog fii nii daam toog bind leen commentaire yi ci suuf artiste bu ngeen taamu rek incha allah dina toog fii xam naa beneen yoon ci beneen numéro. ko sama international bi Siri Sarr aywa ah, ah, ko ba équipe nationale. Ah. doomu Thiès la. man rek sama yoon nekk ci keneen Siri Sarr international maa ngi lay siyaare maa nga lay gërëm Abibou Diallo gis naa yóbbante bi barki Dembo Ndiaye. Vito Mbeng l' international maa ngi lay bëggee Demba Alidia sama xarit maa ngi lay bëggee Baye Jibi Fall maa ngi lay siyaare ah Dame Ndoye sama l'international bi sama turandoo bi Ousmane Ndoye ma la ah ki nga xam mooy Baye Aliou Ibra Kébé sama xarit sama doomu ndey moom it moo njëkk a dem équipe nationale di gauche di football latéral gauche di centre lu neex loo xam ne xam man dama naan football jour laa woon maa ngi bëggee ñëpp nag di sant waa Thiès bu baax baax aw ma seen fay barki yàlla aw ma seen fay billa noo wóor na yàlla aw ma seen fay yéen Thiès mais Thiès lii la ni ngeen ma jàppoo ni ngeen ma taxaw mais taxaw ngeen borom fit jàppale ngeen borom fit jàppale ngeen ku gëm boppam Thiès